donc d'abord euh, loolu moo tax bis ñu ko joxee ñu jël ko ak accueillir ko avec beaucoup de satisfaction di en même temps remercier ñi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi ànd ak man di ma ci jàppale ba aujourd'hui ñu jiite commission bi am solo boobu. bon liggéey bi comme ni ñu ko waxee rek mooy xam nga boo xoolee Sénégal euh, surtout tourisme tourisme religieux bi tourisme culturel bi dafa am solo ndax boo xoolee régions yi mel ni Diourbel ak Sénégal dafa laaj tamit suñu culture ñu war ko gën a liggéeyaat gën ko war a travaillaat ndax man damay jàpp ne kenn mënta euh, développer ci culture jàmbur te war nañu gën a liggéeyaat loolu suñu culture gën a war a mën a taxawaat ci encore ci suñu dëkk pour mën a gën a mën a jaayawaat suñu culture gën ko mën a valoriser euh, loolu aussi am na solo donc damay jàpp ni loolu war nañ ci gën a mën a liggéeyaat te nañ ci liggéey ànd ko ministère bi. aujourd'hui moom laay wax ñun ñi nga xam ne ñu nekk ak côté pouvoir ak ñi nga xam ne dañu nekk ci côté opposition dañuy jàpp ni benn dëkk ñoo ko bokk ñun ñëpp ay député lañu di peuple donc je pense bien que war nañ mën di waxtaan di trouver ay compromis pour que population bi xam ni tey jii ce fi parce que rien ne sert à ñu jaje fii di doxe leneen na nga xam mënul bokkul ak parce que aujourd'hui sur 17 millions d'habitants suñ ñu bàyyee jiital ñu dañoo jiital ci xel ci xalaat ak xam-xam ñu war a qui ont sottante war pour faire bouger les choses aujourd'hui on a presque benn députés député ont ñu rawee opposition bi donc c'est tout à fait normal nous ba discuter di avancer dans loolu nous donc aujourd'hui ñu faire Covid bi guerre Ukraine nous avons fait dëkk bi mais gouvernement pour vraiment avancer en tout cas di remercier et di féliciter tous les députés aussi.